asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu fii ci Thiénaba Kajoor ci korite tombeek le 10 avril 2024 dëkku maam Ahmadou Ndak Seck ñu ànd ak seen mbokkum taalibe Mbaye Ndiaye bu Mbajaar ñu fas leen dëgtal lépp loo xam ne bàyyikoon na ci wàllu julli gi ci njiital al imam nga xam ne mooy Serigne Talla Seck feggoo ak mboolem kilifa yi nga xam ne jot nañ fi rot danañ ci ñëw ndax sëñ xalifa Ndiaye dina egg si waaye ci teewaayu xalifa sëriñ Madické Seck borom yàlla ne ki nga xam ne moo di sëriñ Pape Mourtada Seck gis nañ nag dëkk yu bari nag wax dëgg yàlla ñu fi jot a teew macha allah muy lu am solo euh, danañ ci ñëw dëkk yu bari gis ngeen oto yi ñuy jóge fu ne euh, di di ñëw kon daal li leen fas yéene indil ci julli deux mille vingt quatre gis nañ boobu suñu mbokku ndar yi. ñëpp ñu fi sa chef du village sëñ Talla Diagne ñoom ñëpp yeen and ak yeen ci kàttan borom bit war ko taala dara du leen ci recc ñu ngi leen di nuyu ci baatu imam ci nuyu bi gëna tedd te assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu dellu santaat yàlla santaat yalla bu baax maasa allahu ñaan sa borom bi nangu suñu koor yan ko ful yalla ko barkel ci daraja yonent bi alayhi salaam ñu ngi fi ci kay ci na bakayor ma sa allahu wuti fi ay mag ñu bax ñu bax ma sa allahu meñ ñu bokong bokkoog ñun ñu fa seené taxawu julli gi ma sa allahu ñuy delu santat yalla bu bax imam Serigne mi yalla jox tay dekk bi sha allah mi ngi ni taxaw and ak ñi mara andal ñep ay rakki bopam ay doomi bopam ay muqaddamam ay yaayam ay jigeenam ñep bok nañu yem bok julli di ni la ko ma ngi defé ma sha allah sëriñ taala ma sha allah di kilifa gi mi nga and ak rakam sëriñ ibrahima Seck abdul aziz top ci mom andak Serigne bay sek rakam andak Serigne Omar rakam ma sha allah ak ñom mam Amari ñom ñep and nañu genn andak kilifa gi sha allah Serigne mohammed Murtala sek, dis domi Serigne Madika sek borom yalla neena kamni mi nga xamni khilafa gi Serigne talan ko jele ci mom ginaaw bi mu aje yalla yalla yeesal yermane ci mom ci daraja yonent bi alayhi Islam, momit genn na andak ak ay rakam serigne abdourahman sek mi top ci mom ak sering Baye Sek, sering ak serigne Alpha Sek, serigne jibrilou sek serigne Seexu Amadou mam tala sek ak serigne Ibrahima Thiat mi ñom ñep bok na ni yam ci kay bi bok julli di chef de village alaji tala di magu dekk bi yalla na yàlla dolli ko wir mi ngi ni macha allahu ci dànq jullikaay bi ànd ak sëriñ sëwru jaañ ak ay doomi boppam ñu ràññee ci sëriñ daawuda taawam ak sëriñ ibrahima jaañ mi nga xam ni mooy président daayira canaba kayoor ak sëriñ alfa jaañ ak seeni rak bokki julli di sëriñ xaasam sekk xalifa baay ablaay sekk mi nga xam ni bi baay alfa maamu di jëli xilaafa ga moom la bàyyi woon muy jëf lii du ni jiite ñu ñëpp moom it génn na andak rek ci bopam Serigne Madika sek mi top ci mom ak El Amadou sek ak Serigne bay sek ak dom ma sha allah kenn manqué wu ci bok julli di bok talibe yi keur bay Abdou khara Ngom ñom ñep bok nañu genn andak serigne khalifa Oustaz Serigne Ngom ak El yat ma Ngom Serigne Madika Ngom ba ci Serigne Assane ak seni rak kenn anda wul andak sax seen taw bop Serigne Ablaye Ngom. doomi daam ngom mi ngi jooy to noppeegunu bokki julli di bokki taalibe yi maasa allah kër baay moodu sek sëriñ ngañ sek ma fa yàlla teg ñëw na teewal ay magam ak ay rakkam yal na ko yàlla yàggal bokki julli di kër mortala mbuub maasa allah sëriñ Diop ñëw na génn na ànd ay rakkam sëriñ abdu mbuub ak sëriñ ma dikkee tëggkat yonte yàlla Muhammad ñoom ñëpp bokk na ni yàmb ci jullikaay bi nga dugg kër Serigne isa mbub ma yoro ma fa yalla tek genn na ànd ak rakam Serigne ma dikke ak seenu dom ak seeni yaay ñom ñep bokk na ni ci kay bi kër bay cekka sha allah Mamadou Dieng a ngi nii ak Papa Dieng ak seeni dom ñu sunu ma sha allah bay cekka bay seex yalla yalla dundal len ci barki yoon islam bokk julli di bokki taalibe yi nga dem nja maasa allah boo fa demee kenn kenn manqué wul ci ñoom ñoom ñëpp bokk nañu génn an jiital seenu kalifa maasa allah yal na yàlla dundal ko barke yonante bi alayhi salaam Serigne Ousmane Dia maasa allah moom it na ànd ak ay rakki boppam Serigne Gora Serigne Alpha ñoom ñëpp kenn manqué wu ci ñoo ngi ci julli kaay bi bokk julli di bokk taalibe yi nga dugg biir kër Serigne Madické macha allah Serigne Modou Samb ma yor daara ja di jàngale alquran ji ci ndigalu mag ñi génn na ànd ak moom it Serigne Talla Faye mi rak Serigne bi ñoom ñëpp bokk nanu yemb ci julli kaay bi bokk julli di ne ko mag ñi daa defee ba tey noonu rek noonu lañ koy defe boo demee dëkk yi wër Thiénaba Kayoor te mu xaddam yi mag yi nekkoon fa kenn ku ci nekk sa njaboot bokk teew ci barab bi macha bilal serigne talam beng mi nga xamni ni macha allah mooy yeete ci jumaa ji yal yalla dolu ko wir momit genn na ci Thiénaba Kayoor ànd ak ay doomi bopam ñom pam beng, kenn ci wul ànd ak ñoom tok ngi toog ci bi alagi babasek sek di chef de village su xara wut fa mag du ku bax momit na ak ay macha allah kenn manqué wul ci ñoom Ibrahima ngi toog ak góor mag ak daam macha allah ba ci Baye ma jimbi ak Ibrahima Baye Ndiaye kenn manqué wul ñoom ñëpp bokk nañu toog nga dem keneen macha allah El Hadj Ndiaga Gaye ma wuutu mag ña ànd ak rakkam yëpp ak doomi magam yëpp doomi rakkam yëpp ñoom ñëpp bokk nañu yamu ci jullikaay bi nga dem tawa Serigne Malick Gueye ñew na Tewal sulayman ma sha allah andak ay doomi bopam ñu ràññee ci Modou Modou mi nga xamni ñepp ko ràññee ak Aliou Badara gey kenn ci ñoom manké wul bokk julli di bokk talibé yi sha allah bo démé kër Khalifa gey nga xamni ni ñooñu ah ay mbokk Serigne Abdourahmane sek mii lan sha allah juggé mbëkkëri mbubeen di doomi Alaaji Njaga Mati moom teew na ak ay rakam yëpp daam ja mi ma doon wax léegi moo ko rakam yëpp kenn manqué wul bokk na nañu teew bokk jullit yi boo demee ca jàkkul baay daaw paate gëy doomam xalifa gëy dëkk ci dëkk bi moo ay doomam ñoom ñëpp bokk nañu teew ci jullikaay bi bokk jullit yi bokk taalibe boo demee badar pël mbay saw macha allah ak ay rakam yëpp bokk nañu teew ci jullikaay bi nga dem jarno seti bàyyi ma yàlla jóob yi ana naan ak seen wajur sëriñ góor a jóob di ko baax ak doomam yëpp ñëw bokk teew ci jullikaay bi bokk julli di boo demee Kébémer bokk nañu teew sëñ loo ngi nii macha allah du doomi alaaji baara loo di kenn ci sëriñ ma dikkee daan teew fii ci jotaay bi nga dem Louga macha allah nan ko daan defee alaaji Njaay Sall macha allah ak njabootam jëpp daam président ba ak ñoom Bac Sall kenn ci ñoom manqué wul bokk nañu teew ci jotaay bi nda jàll dem ba Ndar alaaji Moodu Awa muqaddam macha allah ànd naa géy mi daan àndal ñu ñëpp xam ko ñu bokk teew ci jullikaay bi maam góor loo macha allah jógee kër aramin loo di satub maam Ablaye loo ñëw na teewal baayam tegal mbokk yëpp mbokk jullit yi mbokk taalibe yi macha allah alaaji njaga mbeng ca Kébémer ñëw na ànd ak mbay jee ak sëriñ macha allah seexu kere ñoom ñëpp bokk nañu teew ci jullikaay bi nga dem ndand macha allah bada gay ma gay gay macha allah bàyyam doon kenn macha allah ci dëkk bi moom it mi ngi ñuy teew ak njabootam bokk jullit yi bokk taalibe yi macha allah julli gi daal waa jokkul mboolem dëkk yi wër Thiénaba Kayoor te seeni wayjur daan sooy si di ànd ak mag ñi ñoom ñëpp kenn ku ci nekk ñëw nga topp ci ginnaaw imaam Serigne Talla Seck yàlla jox dëkk bi yàlla na yàgg macha allah fa seenee joxal la mag ñi daan joxal suñu yaay yi nan daan toppee ci suñu ginnaaw baay yi ñoo ngi nii macha ñoom ñëpp toog fa seenee def nan ko daan defee kon daal Lini ni tey jàngata moo di ifaadati ka ilek sha allah kenn ko ci nek ma madina kan non lañ ko defé ma sha allah ah sunu sang mu nijaay taala kan mi ngi ci mbolo mi kon bokki julli di bokk talibé yi ñu bokk xamni ni dal rek la dan démé wa kër Pam Jaga nga xamanteni Modou Fall mbub may taw Pam Jaga ànd ak rakam yëpp ak seen yaay ñom ñu ngi ni bokk toog ci jotaay bi kon kay la woon gari dellu santaat yàlla bu baax julli ci yonent bi alayhi salaam ñu ngi dellu santati yàlla bu baax ñaan teewaat naga ni déwén kenn bañ a màng ñu ngi leen di présenté masalaw suñ jëmi bopp ak suñuy jarbaat ak suñuy doomi bopp Mouhamed Mbuub ne bàyyam ba daan def Seydina Ibrahima Mbuub noonu la def fanaan si na biig mi ngi ci biir mbooloo mi andak ak taw bab amari Amary ma sha allah ak sering Ndiaye serign dara ci Tiwaawan bokk jullit yi bokk talibi kon nyu li nyu jangat moy ñu da ñew ñew na yalla sax ci daraja yonte bi alayhi Islam imaam ngi joxe ben ndigal fi ñu tok garab yi fi nek mag ñe ko fi defoon kon neena na nu jëm ñu yit def dara kenn ku ci nek am nga ndigal fo gisee garab gu mana am ker neena bu la bu ko tagg ñëwal jëmbat ko ci dànq jullikaay bi am nga ci ndigal. bokk julli di soon jullikaay mooy. soon jullikaay. soon jullikaay. allah bokk julli di bokk talibe yi kon ñu dellu ci ginnaaw déglu imaam mu jubli ci julli gi yal na ko yàlla nangu ci daraja yonent bi. jërëjëf sëñ Khalifa Ndiaye. bokk julli di imaam a ngi dellu nuyu ñooñu ñu ma limoon ñëpp. mi ngi leen di balu ak mi ngi leen di ñaanal jàmm. tey bisu balante la. tey bisu balante la. comme ni ko ma ngi daan defee. comme ni ko ma ngi daan defee. ba tey rek. ba tey noonu lan koy jéem a defee. noonu lan ko fas yéene defee yal na ko yàlla nangu. comme ni ko imaam daan waxee ba taxawee jotaay bii. xëy na am na ku ne ca ginnaaw. wala ñu nekk ca wala ñu nekk ca ginnaaw. bu nu taxawoon fii. def ko nii nu koy defee. wala nu ko gën a rafet. ndax yàgg fekkee. jàng tuuti. ak jàng tuut. comme ni ko sunna taxawale. comme ni ko sunna taxawale. loola la ñuy roy. loola la ñuy roy. di ko jéem di ko jéem. te ñoo ci bokk xam-xam ñiit mënut a ñàkk de. kon yàlla yàlla nangul. kon nan ko mag ñi daa defee ñu ne defee noonu. dara soppiku ci. dara yokku ci. dara wàññeeku ci. bu ci amee rek. bu ci amee xam la.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 mbokk yi nga xam ne nag ñi ñuy sifar ci àdduna bi yëpp ngeen ànd ak seen YouTube directement Mbadiar TV ni seetaan ci réew mi ak bitim réew ginnaaw bi imam sëlmale ci ñaar raka yi nga xam ne jot na ko def da ngeen waxtaan yu am solo yi nga xam ne ni si rek ñu ko dee gis ngeen mbooloo mi fu ne ña fa bàyyi ko pour ñëw kon ñu ngi bal ñëpp ak te di leen baal daal yaakaar naa ne korite gi tey nag euh, li ñu jóg seetlu ci korite bi nga xam ne moo di korite deux mille vingt quatre mooy ñi bàyyi ko ci àll bi tey boo seetloo euh, ñi fi ñëw ndaw ñi dañ ci ëpp loolu ñaan ngoo xam ne nag sunu mag ñu baax ñu fi nekkoon doon nañ ko ñaan waaw muy la solo loo xam ne sëriñ bi yàgg na ci wax ni ñi kon daal yéen ñi nga xam ne nag yéen a ngi ànd en ci Mbadiar TV ñu ngi leen di wan image yi gis ngeen ko nii la demee yal na yàlla jéggal na suñu bàkkaar ngi jégalu ñëpp ñi nga xam ne ni si rek ñu ngi nuy seetaan ci àdduna bi ak fu ñu mënti nekk. allahuma amin allahuma amin kon nag li daal di def rek jublu ci li nga xam ne moo di xutba bi in ko baaxoo def